falu hmm. xam nga waxu constitution kenn du ko werante hmm. wala boobu dañuy am problème conseil constitutionnel atte ko hmm. fi dañuy toog naan délai bi matul campagne européenne ñaari fam lay doon kenn mënul renvoyer élection xaju fi après mais conseil constitutionnel dafa décider dans le jeu institutionnel bi ñu am bi ñu am jeu institutionnel bi am dafa permettre ak lu ñu mënti traverser am lu ko régler Euh, Abdou Mbow wax na ci problème mu d' premier ministre bu def DPGM loolu defe naa loolu ñu ci dellu hmm. loolu moom dafa mel ni léegi biir na Sénégal yëpp que bëggul woon ñëw. Hmm. muy benn ñaar même bu fekkoon ne bëgg na ñëw mais président de la République moom dugal na ci kàddoom. Hmm. wax ci boppam. moo war le jël décret convoquer session extraordinaire au mhm. premier ministre mu ñëw bu fekkoon ne qui est na ci un ci enjeu yi la bi muy convoqué premières mhm. faut waroon def premier mhm. déclaration politique générale deuxièmement révision de la constitution pas dissolution révision de la constitution xajoon na fi bii jeex mu kañ la commencé war ki dem matoo ñetti fan. 15 mm. mm. jours yi jeex moonte bon amoon nañu possibilité examen examiner ñaari question à l'heure du jour bon loolu amul président convoqué ko mais nit ñi dañ nekk ci jeex zaaxa euh, dégg nga léegi li Seydou Diouf wax nee na que examiner nañu euh, conseil conseil professionnel ci 10 jours wala ci 15 jours wala ci nangam te matul weer mais ça c'est vrai ñoom 2019 bii ñu indi le 11 septembre voté modifiant ses règlement intérieur hmm. le conseil constitutionnel par l'avis numéro de 2 2019 du 23 septembre le le conforme le texte à la constitution hmm. donc 30 jours le mot de dépassé la vous Vous bu qu'on président de la République bëggoon na am bi loi organique bi daf transmettre dans la procédure d'urgence mais de vous. wante woon dañuy jàpp ne bëgg ko def. ok dañ koy jàpp. Euh, projet de loi bi bi mu déposé nii nag muy projet de loi bi nga xam ne mooy révision de la constition bi ngay oote tey bu ñu ko adopté ba pare wala ñu bañ ko adopté wala ñu rejeté ko. Hmm. bu boobaa après selon ñu adopté ko wala ñu rejeté ko dina am ay kàddu yoo xam ne ñun dinañ koy yëkkati ci suñu gis-gis. ak suñu xalaat. dinañuy tegaat encore beneen xalaat ci kaw bi comme ni ñuy tege woon xalaat. ci problème mu règlement intérieur bi baaxul. moo taxoon nga jàpp ne di Abdou Mbow wax dëgg la. teg euh, motion de censure bi. ci député PDS bi nga xamee ne dañu bëgg a am. bi ñuy def commission d' li gënoon ci commission d' bi mooy Amadou Ba bañ a nekk premier ministre. gis nga affaire ONAS bi ministre bon fa parce que buñ fa nekkul ci la enquête bi di équilibré mais bobo bon il def commission d'enquête bi moo tax est ce que vous vers la commission d'enquête et ou une motion de censure parce que motion de censure bi vous fait qu'elle est déposée demain am ñu une session extraordinaire bi hmm. té war nako am je pense que bureau assemblée nationale dina ci d'accord. Hmm. Pour que déposer lundi jeudi au plus tard le premier ministre doit être à l'assemblée bu à l'Assemblée, on a encore crise institutionnelle lundi donc Abdou en tant que député ce mhm. en tant que président de groupe li en tant qu'opposant à régime présidentiel au président mhm. Diomaye moom que jël d'accord alors euh, parce que vous le vous le faites, de créer dañu assemblée des de censure sur premier ministre oui d'accord alors ben non, c'est euh, quand yi le lu non seulement peut-être li ñu nous avons. projet